درجت قصائدي قلوب الحملاء براسي وهي بسر للكملاء هاجت قلوب وهي بسر للكملاء إذا عرش الملك بتسبيح كل ملك زاد billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim asbillah inna waliyallah wa ma tawfiq ila billah laa xawata wala xawata ila billah alil asim mbokki jullit yi bu leen di leen baalu àq tey ni jéglu baax baax a baax ah, xanaa di soññeewaat bi rek biñ daan baaxoo daan def ko amal ci daayira Sitraan daan baaxoo defee xam na ne jamono ji bari na yàqu-yàqu bari nay rëg-rëg wante ndaw yi sëñ Tuubaa moom liggéey rek leen ñor kon nañ ko daan baaxoo defe daan soññee bis ba rek xanaa tamit di nuyu suñu naataango suñu xarit muy suñu fàllu xanaa di laaj yooyu tam bis moom noo noo koy waaj ak noo ko daan waajalee asbilahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ilaa bi ñu sant yàlla jël si yeneen bi sant suñu ñaari waajur di sant xaadim rasul wér a wér ki xam ne mooy lépp di suñu lépp di sant Serigne Saliou bu wér a wax ne comme na nga ko daa defee rek seq at 31 yàlla defal ne ko tàmbalee bi léegi suñu mbokk taalibe yi suñu mbokk murid yi bëgg Serigne Saliou mbokk jullit ñëpp daal wax ne comme na nga ko defee 31 lay tombante 2019 di ñaan yàlla suñu borom bi eggal ñu ci jàmm ñu def ko ay at ay déwén bu ñëw dàq moom ñëpp ci kàttan suñu borom di woo ñëpp nag di wax ne moom mu dal mu taaxee yoonu jub rawatina ñu ay ndaw boo si nekkee boo doonee ndaw li la mën a yàqal ci àddina dafa bëri lool lool lool ñu ne comme suñu borom dimbali lañu te bool nañu ñu ay ndaw di ndaw Serigne Touba di ndaw yi ku bëgg Serigne Saliou aussi comme ñun fekkuñ jëmale Serigne Touba jëmale Serigne Saliou lañ fekkee ah dina wax ne lépp rek na ko teg si ak jaamu yàlla waaw tax yàqu-yàqu jamono dafa bëri lool bu ñu neexoon tey nekk si boîte de nuit yi dugg fii def nii mais nag defal da ngaa def ngir san Sëñ Saaliw sant Sëñ Saaliw moom bu ñu ko waxee maam moom ñëpp képp sa doon laa ilaaha illallaah rek yaa ngi ci biir waaw ah, di wax ne moom Sëñ Saaliw moom mooy lépp moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la saa boo si nekkee rek teg at da ngay gën xam yaa ngi yok di gën a am expérience yi lépp rek di ñaan yàlla suñu borom ah, may ñu ak tal ban yegg sax jàmm ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala amiin jaajëf sëñ Fallou ñu ngi leen di wax yàlla kàddu di am na solo lool di ñaan suñu borom may ñu ci ak dégg ak topp gis ngeen rek ci gis ngeen ci réew mi ñu nekk ngeen xam ne loolu ci mel ne 31 décembre dañ ko daal di fonk lool wante ñun ñu gën a santaat Serigne Touba ba ñu nekkee ndaw yoo xamante ni dañoo xiir ci loolu kon nag bis ba moom lañ ca gën a saako mooy njàngum alxuraan ginnaaw ba njàngum alxuraan bi daara ñu teg ci njàngum xasida kuréelu xasida yi fanaane bis bi kon nag yaakaar naa su ma juumul rek moo nekkoon ci programme bi kon nag ñu gën a bàyyi xel te xam ne bis bi moom bis bi ñëpp la te Serigne Saliou moom yaakaar naa ndaw ñëpp la yaakaar naa ndaw ñëpp ñun ndaw ñëpp Serigne Saliou lañ xam kon lépp lu ñu xam ci lu baax tamit Serigne Saliou lañ koy santee kon nag nañ gën a wàccee waajal bis bi te xam nañ ci wàccaay ndax loo xam ne daanaka lu ñu daan waajay at mu dem bam desi wer mu des tey ba fan kon gëna sa dat serigne touba di ñaan suñu borom euh, fekk lañu ko ak man la ko tal ko wan di ziar jëwri yi nga xamni ñoo liggé bëpp di ziar ku ci melni ne Abdou mbay mom tan ñu ngi koy ziar bu baaxa baaxa baax den xamal na bis mom nañ gëna gor gor gëna takku gëna a laxasaay te xam dal mom mom bu jegee suñu bis la waye nañ ñaan yalla mu jag nam daan jegee ñu am nañ ci yaakaar ne sëñ bi dañ ak deg ak top képp ko xamne yaangi deg suñu kaddu tamit bu bis ba nga tàppee suñu chaîne YouTube Akwaba TV bu soobee yàlla boo ci duggee lépp dana daw en direct kon képp koo xamante ni yaa ngi dégg suñu bi nga nga abone te xam ne lii gën a doxal liggéey bi ci la ndax ñun ñaan nañ yàlla te fépp koo xam ne xew-xew diine la daañ fa teew defal la comme noonu noonu ak noonu ko bëggee xew diine yi fi jaar yëpp noonu lañ ko baaxoo defee kon nag ñëpp nañ ci bàyyi xel bu bis baa bu soobee yàlla nga tàpp Akwaba TV mooy suñu seen YouTube kon xam naa su ma juumutoon sëñ Cheikh xam naa kon li ñu amoon ci waxtu rek dafa daal di jot bu defee dañuy yemale foofu kàddu yi di waan suñu borom fekkaloñ ak tal ko ba bis ba ak man la ko bu soobee yàlla kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu di leen jéggalu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu